borom di ko gëstu ba Mouhamad El Kabir wala Abbas doon na gëstu loolu dem na ci benn sëriñ laaj ay taseeg taalibeem mel ni ku doon laajte ci mbiri bàyyi dara rek taseeg sëriñ bay laaj ko ko xamu ko da ngay gëm ne affaire bi amul ah mu koy laaj affaire maarifa sëriñ bi xamu tontu bi ba pare bu ko bu nit ñi. naan ko yee eh, loolu nag kenn ko wax ci mbooloo waaw mu ne ko li ngay li li may laajte sa sëriñ di borom li may wax bu ñëwee borom bu ñëwee lim indi xale yi dañ ci waxtaan jigéen ñi dañ ci waxtaan jublu ci ne dañuy weer mbóot de waaye dañ ci waxtaan ndax borom xedd moo gën a bañ weer mbóot ndax bàyyi moo wax ne kashfu israar rububiyyati bayna al-mahjubina ashaddu inda allahi min al-haram weer mbóoti pay yàlla yi ci kanam mahjub yi moo gën a mag ci yàlla lu xaram سيدنا علي واخني نغي واخ اك نيت لي مانا دغ تريدون ان يكذب الله ورسوله ندا نغي بوغي ني فنلو يالا كاب يوننت وايي تونت بيم كو تونت سي لا خامي سرينم دو بوروم محمد الكبير موم بام نكي داجي اك باي داف ني باي انت ابراهيم تي محمد الكبير باي سي بوبام بيمي نيت لول داف كو ملال ندا داني واخني موم دا فا ملني نيم بغون رك لا كو يالا بيندي ku neex baat ku taaru ku am xam-xam ku mën alquran ku mën a bind ku am lijaaba ku lii ku laa ku lii yu baax yëpp dafa dajee ci moom ku rafet jikko ba ñu wax ne dafa mel ni moom ni mu bëgg rek la ko yàlla bindee ba mu dajee bàyyi nag lim mu a laaj bàyyi daf ne ko ante ibrahim yow yaay ibrahim bi ma doon dégg bàyyi ne ko waaw man la gannaaw bu bàyyi waxee ne muhammadul kabir aarif la billaahi boo xam ne ku fiir ci maarifa la ku xam yàlla la dafa fiir ci xam yàlla mu ne bàyyi yaay Ibrahima mi ma doon dégg bàyyi ne ko maa Ibrahima yaay Ibrahima mi ma dégg ne aarifum waasilun xam na yàlla àgg na ci yàlla bàyyi na ko arju min allahi an akuna waasilan gis nga tawaadu saalihina ba muy tontu sax mu ngi wax ne yaakaar naa te bi muy yaakaar maqaama bi gën a rëy boolewu ko ci lim yaakaar tudd ko ndax yaay Ibrahima mi ma dégg ne aarif la waasil la xam nga aarif moo gën a mag waasil waaye moom daf ne yaakaar naa rek ne ne waasil la jotaay ba moo laajoon loolu muy suufeel boppam waaye kuy wax ne wusulu jamiil masikina bi xabliya bu ci am téere bi na ko changé téere yépp léegi malikina lay wax wusulu jamiil malikina man mënuma ko firi wusulu jamiil masikina bi xabliya taxaqaqahu man lam yukazib bi rabbiya ku dem ba wax ne ak ak ñu jàpp ci sama loxo yépp ku weddiwut yàlla rek xam ne loo dëgg la kii nag ñi laaj ko ndax ndax yi aarif nga waasi la mun a yaakaar naa ne àgg naa rek Mouhamadul Kabir bàyyi bu ko de Mouhamadul Kabir ne ko Abdoulaye Wuld Xaaj moo ma wax ne yow aarif nga waasil nga waaye nag man fonk gi ma fonk Abdoulaye Wuld Xaaj yëpp du ma nangul kenn ne aarif la gannaaw fekk weetuma moom laaj ko ci xam-xam ah bàyyi mu ne fa talaba min nii ndax lu maahu burhatan ما تفارقنا إلا لأجل صلاة قام حان وقتها وهو القائل أشهد أنك عارف واصل أشهد أنك فوق كل ما قيل باي مو من نيان ne نان ma وقتان عبد الله waxtaan Abdoulaye ما عارف nga way man lol doy ma dégg ma doy dégg gis lima deggon dama koy gis dor ko gëm deggon naa ko waaye faw ma gis dama damaa bëgg ñu wéet ah baye mu ne mu wét ak mom ñi waxtaan waxtaan wu neex wu neex wi maa ci yokk wu neex bi maaku ko ci yokk parce que xam naa ne neex na waaw mu ne suñ suñ jotaay boobu dara tasut ko lu may jullee jot seetal nag seetal nag seetal nag nañ jàng foofu duñ ko jàngal kenn ñëpp xam nañ ko koo xam ne dañ ne la dégg naa ne yow aarif nga waasil nga waaye tim melal nga ko ne aarif la bu bu bu nay ci xaqiqa ngeen toog di waxtaan waxtaan wi ni mu neexee waaye ba julli jotee rek waxtaan wi yàqu xamoon naa góor bu baax sëñ Yaxya li radiyallaahu demaan ci moom bu ñuy waxtaan bu ñu noddee waxtaan wi yàqu loolu bàyyi la loolu mooy tariqa tijaaniya waaye bàyyi ba muy waxtaan ak Mouhamadul Kabir ba waxtaan bi neex ba julli jotee rek waxtaan wi yàqu yàlla yi ne moo jot noonu la bokkee ci ñoom. non la ñuy arif non noonu la wasil non waasil noonu talib bay waye ba waxtan bi tassé xam nga lu ko waji wax ma ngi sédé na yow arif nga wasil nga ma ngi sédé ni liñ doon wax ci yow yépp li nekk ci yow moko ëpp ashhadu annaka fawqa kulli ma qila liñ doon wax ci yow yépp sédana ne li nekk ci yow ko ëpp bàyyi mu ne mu bindal ma lijaasa lijaasa bi nangam lijaasa bi ñu ngi ko amee kon ñi ko doon bindal lijaasa nga xam ne moom ñoom la def ñii ay sëriñam ñoom ñoo wax ci moom lii du ne taalibe mi ñoo ko wax wala taalibe taalibe yeneen ñi ñoo ko wax waaye ñi nga xam ne moom daf leen a nangul ne ay sëriñ lañ ba jël ci ñoom ay ndigal ñoom ñoo wax ci moom lii ak wax nañ yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yoo xam ne yëpp xam naa ne buñ koy kee mën naa am sax duñ waxtaan ci liñ doon waxtaan xaw ma ndax ñu ngi tegu ci waxtaan wala rek Cheikh loolu lañ wax ci moom dégg nga baayam tawdu chamix jabalu shariati wal xaqiqati nga xam ne bàyyi ak Abdoulaye Wulul Xaaj am nañ waxtaan woo xam ne ci kanam maam alaaji tontu maam alaaji foofu ci ngay xamee kii naka la ndëggoom dëgëree ci xaqiqati waaye ànd ak loolu taw du sharia la jëbal jëbal jëbal boo xam ne xam nga doj bu mag bi yomb te yëngal waaw xam nga man maa ngi wax di yëngatu nii new doole rek waaye gaa yi am doole bu ñuy wax kekk la ñuy def duñu waaw te gaa yi sikkar tuuti yëngatu baax nañ lool waaye néew doole rek ndax ci ñi jàngé ci kër ñi jàngé ki yëngatu ñu ne tek tek lañ def tek waaw bàyyi wax ne wa in dahishal aktaabu yowman bi mashhadin aqudhum li sahwi li listidaadi riwaayi ashrabu min saxwi almahabati saaqiyan wala sukru yulhi bal udimu saqaayi bi yumni nabiyi alhaashimi alladhi mataa تنفس في قلبي استبان ضيائي ما فوجا خالص باي واخنا بو قطبي يغلمي قطبي واخو تاريبي ندوي قطبي بو نغلمي ما لين دي امات فان لا لين دي يوبو تي سما خولي لا لين دي يوبو نده ماغي خولي خمغا بو خولي مو مانا يوبو كي نلاو مان يوبو كين aji laaj laaj ko bu la neexee nga laaj ko ci sa xel moom it tontu na la bala nga koo laaj ñëpp a koy laajte waaw xutbu yi leen gëlëmloo te ñoom ñi nekk xutbu te yow gëlëmoo mu ne li ci daadi riwaa yi sama màndi gi moo tat moo tax naan gi mënatuma gëlëm loo min na min na min na min maa ul maa ul xayaat min na dëgg-dëgg am na benn waaye bu yuuxu ci jumaa ji dem mu ne gaa yi kii boo ngeen jox ko ngant ni ma ko gisee mu takkook diwaan yi baay bi te diwaan bi di wàcc ci ay xaal baay di jooy benn xale di ko jàng ne du jooy il faut waa ji jooy ko ne ba mu koy jàng moom ci boppam ba koy bind daf doon jooy bëkkaytu wa af naytu dumuua fa mal bukaa siwa xaalatin lil qalbi min xarqati shawqi boo ko jàngee rek boo koy jàng rek mu yóbbu la ci loolu moo tax waa ji dem ba ci kaam rek mu yëngatu gaa yi kii waaye nag seetal aarifin yooyu bañ toogee rek di wax julli jot rek yépp yi àqu julli gi moo gën a farat xaq yàlla ci ñoom moo gën a farata loolu lii seen seen i seen i jàngale nañ koy seet nañ koy roy nañ koy seetantal ndax lépp kenn bind ko ci téere lépp kenn waxu ko waaw waaye ku seetantal rek yàlla mën na laa ubbil buntu nga gisee ci bàyyi mu tëjoo ku jugee ba Mauritanie di wax ak moom lu mu farataal ñi nodd rek wax ji yàqu julli gi moo toll loolu parce que xam na julli lan la silaat asalaatu silaatun bàyyi nee na julli ay may la waaye nee na julli sax sëlatun connexion la waaw ku soxla connexion nag tara fityatan sakra bi xubbi ilahihim wa kullu fatan yulfa lada zikri أزورا وأكبرهم فيها يزاحم أصغرا وأصغرهم فيها يزاحم أكبرا faydu bi mu wax ne feeñ na fa fa ci borom xam-xame alawiyin yi nga xam ne ci gàngaami tariqa bi la ci ñi saxalal baay bi mu ootee faydu bi nangul ko ne faydu bi feeñ na ci ku am gis-gisi xol kum neex nga gëm nag kum neex nga weddi man sha wal mun man shaa fal yalla ko jagleel nak madinatu kawlax mu nek barab bi wayam walis dekk yeb moy faydu bi mag bi Cheikh Ahmed Tidiane don junju amul bu ndaw wala bu bu koy féetee gannaaw wala bu koy mujjati wax nak ne waxtu wo demee fofa. da nga fekk mbirim faydu bi mo gëna bit jantar njolloon da nga fekk ay ndaw yu ndaw yu mandi ci tuddu yalla ku ci nek nak yang ko gis ngay jaayu da nga fekk mag ñi di ci ndaw yi da nga fekk ndaw yi tim di buuxanteeg mag ñi kon natijatu feñ ak faydu bi lan la iqbalu ala allah jublu yàlla cheikhaani dafa bind baye lettre ne ko maa lay gannaaw bu mu baye ci taalibe yi am nañu àgg ci yàlla leetar bu bu jarat di jàng ba ko bàyyi tontoo daf ko wax ne ko maa ngi sant yàlla ci dolleeku gëm yàlla ci xeeti yonant bi kon àgg ci yàlla dolleeku gëm yàlla lay bijj ci jaam bi góor ñépp wax nañ ko natiijatul maarifati billaahi iqbaalu ala llaahi njëriñal xam yàlla mooy jublu yàlla njëriñal xam yàlla mooy jublu yàlla yàlla tasaare ko tasaare boo xam ne xam nañ ne tasaare yàlla rek la waaye pexe mënul ko ci jaane Osmaan melal ko ci wéyam junjël bàyyi ci xasidaam bu neex boo xam ne ba mu ko bindee dungur gaa ñi baax na ba mu ko ba mu ko bindee ci la ko bàyyi may lijaaza ci la ko bàyyi ci la ko bàyyi wax ne ko sa mashrab bi mashrab bi rayaax yi la balaara bi lañ bàyyi may lijaasa ci xasidaam bi waaye Cheikh Tidiane Ousmane ba muy melal faydu bi melal bàyyi dafa wax ne faada fi mulkin wa maalin fa huwa murwi kulli zaamin kam xadimin saara maxtuuman wa cheikhan saara amin bàyyi ci lépp la bëggu ci ngóor am na ñoo xam ne ba ñuy gis bàyyi nguur rek lañ bëggoon mu tëbb leen ko ñoo xam ne alal lañ bëggoon mu tëbb leen ko ñoo xam ne ay bëkk néeg leen bëkk néeg lañu woon mujj ñi leen di bëkk néegu mooy naanal képp ku mar kam nasaara aslamu min faydisal xutbil imaam ñaata ay nasaraan ñoo jébbalu ci faydu baay bi waaye bind na ci benn leetar di sant yàlla wax ne arifu ana zuwa asharata malaayin ictanaqu hadihi tariqata bi wasitatina وعددا أوفر منهم كانوا قبل اتصالهم بنا مسيحيين وعبدة الأوثان وعبدة الأصنام وعددا أوفر منهم وصلوا إلى الله بالشهود والعيان لا بالدليل والبرهان وكأني بالشيخ التجاني وقد أنشد قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل باين مانغي قم فيمني لو أبو fukki million yoo xam ne jël nañ tariqa bi ci sama bunt moo leen jox wala kum jox jox leen xam naa lim bu ëpp ñooñu ñoo xam ne jàpp nañ ci man te njëkk loolu ay héeféer la ñoon ak jaamukati xaram ak ay chrétien xam naa lim bu ëpp ñooñu ñoo xam ne àgg nañ ci yàlla ci janoo ak jàpp du ci dégg ak tegtal mu ne mel na ni maa ngi dégg Cheikhu Tidiane mu naan ma قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل mel ni maa ngi dégg Cheikh Tidiane mu naan ma tànn nañ la ngir mbir moo xam ne boo ko xamoon bul boole sa bopp ci ñuy wañaan di dem moo tax ba mu ñëwee fu nekk la àgg jàng ngeen ko yéen ñëpp gaa yëpp jàng nañ ko tariyaat ko awalum hawsaaw ahlu jarma kaza dogombal xayru fihim amma wa jaa ani yorba kaza ka mushi wa wangara wa jaa ani mam fushi ba wax ne ah ilmadfaul kabiru yarmi min baid ani maqaamahul ñëpp jël nañ xeet yi yëpp jël nañ ngay jaaxle mu ne la kenn gu mag kenn gu rëy bu sànnee fu sori lay dal nga ne ko kenn gi mooy mu ne la mooy Cheikh Ahmed Tidiane maqaamaam maqaamaam katmiye bi maqaamaam buñ nëbb bi kuy xam-xamal ku tukki li am nañu tukki jàng yi tukki ci sa xel laay wax xel mu ne nag mënta tukki dafa war a am paas pour tukki gis naa ko bàyyi bi ni leetar ne ko fi mu ne nii bunt ubbeekul na la pour maarifa maanaam loolu mooy ku dem rek ba am wusul buntu ubbeekul na la pour maarifa léegi nag nit dafay am wusul rek jàpp ne am na maarifa jeex na xam na yëpp jeex na déedéet boo gisee bàyyi ne daan du nangoo wax ak benn murit ci kanam koo xam ne àggut ci xaal bi mu xàgg ndax ku xeeñtu banab xaqiqa maqaamu bu dégg rek daf koy oote dool di la àggut ci moo tax bëri nañu oote bëri nañuy suur suur lu tax añuñ tim bu ko ndekki lu ji bu ko ndekki lu diis jiitu woon tim nga nga jàpp ne mën na leen a suural comme waxtaan bi mu gudd wal xadiisu si boole woon ci waxtaan bi fàttaliku imaam ak yaatalam ci lii bayti bi ma mujjee wax lijaasa moom bi ko bàyyi bindal bàyyi bind na ci bayti boobu qadra shahuka li amrin bàyyi bayti bi mu wax ne mel na ni maa ngi dégg Cheikh Tidiane di ma ko wax ba mu bindalee imaam lijaasa bi nga xam ne mboolem asaanid ji ñu ngi ci boole na ci bayti boobu ne ko tànn nañ la ngir mbir moo xam ne boo xamoon bul boole ci sa bopp ci ñiy wayal maanaam amatoo droit mel nu la neex parce que dafa am lu tax ñu duñ la pareel te mooy ubrizulil jiilil jadidi misaala misaal boobu la misaal yi yari bàyyi la boo xam ne doomi doomi bàyyi la doomi taalibeem bu mag la bu bu xam yi bàyyi bu toog jaar ci yoonam loolu yëpp du ma ko wax yéen ñëpp xam ngeen dégg nga waaye doomi madrasaam la tim doomi madrasaam boo xam ne dangaa gëm bàyyi doyloo gëm ay jàngaleem nekk ci gëm yim buggoon di ko jéem a amal imaam loolu tax continuité la ci bàyyi comme keneen ku jaar ci ndëggoom ak keneen koo xam ne mu ngi góor-góorlu jiilil jadid yi nga xam ne moom la bàyyi doon génnee rek ñooñu la ndax gént na ku mag dafay gént ku mag dafay gént waaw gént xoole ku mag day gént fekk mu ngi xoole waaw toog wax lu rëy ne nangam danaa ko def gannaaw bu mu jàngee alxuraan xam ngeen ko jarul jaar jaar ci yar nekk na ci daaraay Baye amalu Thiam moo ko doon jàngal Baye Amadou Thiam borom kës la ndax dafa toog wax ne. ku may ubbil Amérique boobu Amérique xewagut de boobu Amérique xewagut satellite di amul rajo yi ñi xippi ñooy déglu rajo voix de l'Amérique ñi xippi bëriwuñu waaw boobu jàng tubaab xale yi dañ naan fo ne rëdd wii ku fi jaar dem safara wii ku fi jaar dem àjjana ñu ne bii mooy ñi jàng tubaab yi ñëw ko moom bay Amadou Thiam ne ku may ubbil Amérique mu am kóolute ne man loolu ambition la nit koo xam ne dafa am bëgg-bëgg am am lu mu bëgg parce que ku am lu mu bëgg toujours dafay wax loo xam ne nit ñi dañu foog ne gént yi sëddal aali yi bële canal de Suez biñ def ci Égypte boo gisee photo Baye Baye ngi euh, am na film boo xam ne Baye ngi koy teewee ànd ak Jamal Abdou Nasser ci lu jiitu ibnul haysam mas naa toog bu fekkee ne zakira xiyaanahuma aalim min ulama ci njiitoon toog gis ne mën na koo def mën naa def canal bi ñiy jëriñoo ndox mi lu ëpp ni ñu koy jëriñoo mu dem ba dara desut lu may pour amal ko mu échec ci loolu danaka xawee na ci doxé waye jamono dem na ba xamal ne loolu am motax nit ku da fay gënt fay tok rek wax lo xamné ne yi tuddé ko américain ñom mm, Saas Mbay cham américain lañ doon wax imam ñu bari dañu fogné ne américain dafa dem Amérique ñu door ko wax américain ñu ngi koy wax américain fekk mu ngi ci Baye Amadou cham di jang anahu lolou nit ku am bëgg-bëgg di daf daan wax ne dana dem ba San Francisco te bokkut ak koo xam ne da ngay dem ba San Francisco yaa ngi seet club am na ay club yu neex yi nekk yoo xam ne ku bugg lu may àddina boo demee loolu rek ngay seet waaye da dem ba San Francisco silam mooy képp koo xam ne danga koo fekkoon mu sàggan jublu àddina nga fexe ba xamal ko ku yàlla xamal ko ku yonantu xamal ko alxuraan ci état boo xam ne àndut ak yàkkamti te loolu yëpp tarbiya bàyyi la ak bëgg-bëggam ndax imaam gannaaw bu jàngee. Égypte ba am diplôme am ñëw waa Libye proposé ko ne dañ koy jox liggéey ci benn dëkk Afrique euh, jox ko salaire mu nekk ilimaan foofu xam naa ne ilimaan gi ko bàyyi def rek lañ doon xeeñtu ñëw otoog yépp mu yónni nijaayam màkki ci bàyyi bàyyi waxu daal ba mu ay ay fan mu ñëw bàyyi na ko dégg naa li nga wax bu fekkee loolu nga bëgg baax na fekkee li ma bëgg ngay def da ngay dem Amérique da ngay dem Angleterre jàng anglais mu ne bàyyi bëgg naa dem Angleterre jàng anglais waaye Angleterre dafa cher am bourse bourse bi dagg nañ ko bàyyi na ko demal rek boo demee sama ndimbal daan la ci fekk dem Angleterre nekk doomi daara nekk yari bàyyi bu fàttewul loolu dégg dëkk naa ak ay nit amuloo bourse jamono jafe dégg nga kenn xamu la xamuñ sa maam xamuñ sa baay dégg nga gëmuñ lislaam bi ngay wax tariqa bi ngay waxee yaa ci nekk di ci wéet alquran yi ngay jàng yow kenn yaa koy jàng waaye mu ngi gëm lim nekk dem na ndax réewi tubaab yi boo koy jàngee léeg-léeg pour làkk yomb la léeg-léeg dañ lay jël yóbbu la ci benn famille nga dëkk ak ñoom pour ngay am koo xam ne nii da wax ak moom pour ngay ngay ngay ngay mën a practice pour am làkk mu ngi julli fajar mu ngi kii am na bés mu ne dafa yéex a fajar jigéen borom këram jigéen dia nga xam ne mooy jabar yi borom këram im dëkk dafa ñëw di ko fëgg naan ko jugal jugal balaa jant bee fenk ba nga xam ne sa yooyu doo ko mën a def te wëy yi muy wax rek mooy alxuraan ji loolu la nekk ci london dem na ba am jamono mu dëkk ak ay gambien am koo xam ne daf koo gis mu ci kaamil bi mu ci lii mu ci lële mu ngi ñaan waaw jaar na fi ci ay jaaruwaay gis naa leetar bu mu bind Seydi Ali Seydi di ko wax ne ko loolu yëpp du dara xubaarun taxtahu anwaarun ay lëndëm la waaye ay leer a nekk ci ronam dem na ba bind Seydi Ali leetar ne ko tur sàngam da ma cee tënk te bàyyi ma ci woon dama bëgg nga dindil ma tënk gi xam nga loolu ba tey bu beneen jàngale la ndax bu doon nit ci jamono yi léegi ah Seydi Ali dafa maa tënk bàyyi mooy sëriñam bàyyi tinke na ma ku mu jeex waaye dafa bind Seydi Ali leetar tur sàngam bàyyi ti bàyyi bàyyi tënkun ma ci dara te yow tur sàngam da ma cee tënkoon ndax Seydi dafa mas a ñëw ker am benn muqaddam bu ko laaj ne ko laaj na ko benn sëriñ bu fa jaar kooku laaj ko kilo or amu ko sëriñ bi mu jox ko ko waaw ndax inna rijaala ala asrarihim ala asrarihim suburu góor ñi ci seen mbóot yi dañ ci muñ dañ koy dañ koy garde ah Seydi Ali jaar fa sëriñ bi ñëw laaj ko ko mu génnee kanaas ne imaam bindalal waa ji tur wi waaye yow nag bu ko sikkar man nga koo ñàkk sikkar fekk amuloo ñeent fukki at mu tegal ko ci ne ko kii tur wi ma joxut ma dara de waaye dama xeñtu ci moom mbëggeeli sëriñ bi moo tax ma jox ko dama xeñtu ci moom mbëggeeli sëriñ bi moo tax ma jox ko te mu ngi koy aaya imaam ne ko yow turi yow bu ko laal fekk àggoo arbayin àggoo ñeen mu dem ba London nag penku féetee xarfu xarfu féete penku mu bind Seydi Ali ne ko tekki ma ci loolu mu tekki ko dem na ba toog fi mu des ak di wax naan ah fii London la de fii amul doomi sëriñ ak yooyu de amul nangam fii liggéey rek ñaq rek nangam nangam te imaam ku nangu liggéey la du ne nit ku nekk li muy liggéey da ñëw di ko yottal ku nekk daan na jënd ay or di dem Kinshasa di dem Congo di ko jaay pour am lu dagan lu muy ñaqee ñaq ci ñaqam nekk na fa jamono nekk ay sénégalais mu ne ba muy tàggoog ñoom ñu ne ko siise waxoo ñi yow foo bokk nëbbu nga ñu ba yaa ngi ñibbi waaye ku la toppoon xam ne ci ñu baax nga bokk loolu yëpp yari la du rek ñew rek ni di moy sama ñi respecté la do jëm effort wala nga tassé ku ñak teggin ku naan kuy koku jaaré fa yow waaw amna ño xamné kuy koku rek mëna wax ci ñom kuy koku rek mëna naa ni motax bu ñaan xamul sax bu leen leen tudd nga gis nak ku gëm ku gëm ku gëm yëngatu kon gambien bi doon wax lolu xamul ki kan la fi amu domi serigne amu nangam waye tok na jëmmi jamono am ku ñew laccé ana hasan moom xamul fii waa ji waa ji waxul fii ku ko yónni mu ñëw ñu ne ko mu ngi nii mu ëkkati saak jox ko muy xaalis bu wëri waaw ba léegi ne wa xamul fu waa ji jóge loolu yëpp inaaya rabbaaniya la ak topp ndigalal bàyyi ak bëgg-bëggam danaay wax toujours ne ku muusoon daal di yëngatu ci rawatina ci xadra bi war ngaa fexe ba dëppale koog li bàyyi bëgg ndax moom li mu bëgg garanti na hadamtu lazi qad assasuhu wa innani bi sirrin muqaffa laa yuhaddu binaayi bàyyi ñëw na France di faju Paris muy jugee London di ko seet am yoon mu ñëw bay dellu bàyyi jox Mouhamadou Kabir Faye xaalis mu ko joxal lii Xasan mu jënd ci biir lii mu def ci poosam mu xool ne ko man de bëgg delloo lépp lu jóge ci bàyyi de xanaa ma jël cinq cent franc bi waaye njëgi billet bi delloo ko bàyyi ne ko am naa billet retour semaine bii ñëw sax bu ma koy seet si am billet bi ma koy seet si réservé naa ko ba pare aller retour bàyyi na waaw góor góor loolu lay mel waaye toog rek naan sama baay sama baay bàyyi bàyyi du porte montre te saxut bu bàyyi ngi jëmbat ci moom ngóora bàyyi ngi jëmbat ci moom ngóora te loolu mooy yaram ku nekk rek mu lay wan ne mën ngaa avancer imaam a ngi nettali loo xam ne keer la xewe di gis bàyyi nan lay encouragé pour mu xam ndax mu ne bàyyi dafa dem ba war a ñibbi amuñ luñ taf ci ay valisam pour bind ci adresse mu ne bàyyi loolu yomb na bu ñu utee suukar rek tooyal ko jël kayit rek taqal ko ci dañ ko taf mu taf bàyyi na ko defal ma gis mu def mu gis mu bind bàyyi na ko ah bu ma demee naa Serigne Aliou Assane xam na lu ñu xamul de xam nga loolu lu tuuti la jël kay def waaye pour pour encourager la walla ne walla ne bëgg na sax nga xam loo xamul ci ki nga xam ne moom moom attama fatee inde mahdi wa qad ana jamiu rijali bi taxta qadaari bu lay gëmal ne mën nga am loolu pour nga góorgóorlu góorgóorlu bàyyi mas na di tukki di kafe soxnaam yaa fanjaay daaw yaay Seyda eh, Ndey Xadimi rek bàyyi koo ñuy bàyyee mu ne ko bàyyee naa leen Assane mu ne ko ah Assane mii dafa am dépasse kii étudiant woo xam ne amul dara waaye fekk naa ko moom muy wax imaam bés mu ne ko ba bàyyi di wax loolu damaa foogoon ne bàyyi daf la doon maame rek ndeke daf laa bàyyee suñ dépasse yow nga war koo def loolu yëpp ay ay yar la bàyyi naa leen asal loolu am na baat bu muy def bàyyi def ko bëggoon am ci moom yaakaar waaye yar ko waaye moom tim tasut yaakaar boobu bi mu nekkee London jàngu fa dem vacances Amérique fekk na moom bi muy dem London dafa ñaan Seydi yi nekk mu defal ko listixaar eh, bëgg a dem Amérique dafa ñaan Seydi defal ko listixaar ne ko boo demee boo ne demee Amérique yaa ngi ànd ak yonantu bi boo demee London boo nekkee London yaa ngi ànd ak yàlla ah imaam mu ne ci seen nekk na London ak yéen fa nekk yëpp kenn waxu ko ne ko jox ma tariqa kenn waxu ko ne ko jox ma lislaam nijaay Imdi Yusuf Ilias Kachina ci taalibe yu baax yi nga ma wax taalibe baay yi ci jubloo yu baax yi pour feddali rek la waaye taalibe Baay mooy baax salaahu ahibaa'i yaruuxu li ta habibillah xabibillaahi fawzan ala fawzi moo tax ku leen di wax dara rek pour gën a baax rek lay wax waaye taalibe Baay mooy baax bu taalibe gi wéree Ilyas Kachina boo ko imaam waxee li ko Seydi Ali wax ci listixaar bi daf ne ko he kon da ngay dem Amérique ndax yàlla njëkk muy def tëjali ci dara nekkut ak dara amul dara lu may ba mu amee la yonantu kon yow amérique nga wara dem ba bam demee amérique rek sel na lolou ndax mu ne bu ñëwé ñëwee amérique vacances rek la fa ñëw óolul sax ay anglais ñi naan ko firiñu alcorane alquran li waye lu mu wax rek mu gis mu am jeexit nit ñi di dugg ci l'islam di tuub dégg nga ba dara tàggale ko lolou jugee fofu lu may bayam ngeen adina mu ñëw wara nek iliman nga xam ne moko ko nasal waye and ak lolou waxtu nek himmam moy ci saare l'islam fum toog ak da nga xamni baye nak bokale la ñew tagale ak jami motax ñi wax ne waxam la ñi wax ñi wax ne ay talibem ñoo leen yar buñ amul wax ju ak waxam nañ nopi parce que da ngay réeral ñeneen serigne yu bari dañ leen doon wéddi parce que dañu genn wax lu nit ñi àttanut amna ci ño xamne yoon yi sufiyanke yi ñi ko donnloo nit ñi imaamul Junayd mooy sa zaimu taifati sëriñam imaamu Shibli yi mooy sëriñam te Junayd wax ne lim am yépp ci Shibli yi la ko amee baayam daf koo sant sëriñam boobu sant ko mu topp ndigali sëriñam te jàpp na lim am yépp ci loolu la ko amee te Shibli yu dem na ba jamono ñi ne xéeféer la dugal ko ñi ko bëgg ñoo ko bëgg musal ne dafa feebar ñi dugal ko hôpital mooy ni yóbbu ko fànn rek loolu ti mën naa dikkee ci ku wax nit ñi loo xam ne ni xamuloo ko dégg nga te majj zubbu ci mos tuuti rek jàpp ne jeexal nga yàlla amatoo sëriñ booy laaj amatoo ku lay gàgganti bàyyi am ay taalibe yoo xam ne ay mag lañ waaye daf leen daan wax ne boo amee loo lu waarit bu rot ci yow nag ma ko wax buy noonu ma saxal la ci bu dul noonu ma aaree la bind Muhammadin Misri lay sar ne ko waarit bu rot ci yow na nga ñëw ci man bul wax ak kenn sax bu wéree ma saxal la ci bu dul loolu zajartu ko anu ma aaye la te ne ko man mën naa dégg nañ ko déglu ne mën naa dégg koo xam ne dafa jeex ci yàlla ba fàtte yonent bi ak sëriñ bi muy Cheikhu Tidiane bu taxutoon ak jeexoon na ci ñoom xamoon na leen koo xam ne dafa jeex ci yàlla ba fàtte yonent bi ak Cheikhu Tidiane wala xamatu leen bu taxutoon ne jeexoon na ci ñoom xamoon na leen waaye mënumaa dégg ku jeex ci ñooñu ba fàtte yàlla moo tax nañ nañ gàggant suñ bopp ci yu bëri nañ gàggant suñ bopp ci yu bari yu bëri dañ koy wax mbëggeel moo ñu ci sos euh, euh, en waaye kiñ bëgg bëgg nañu ëpp loolu xam nga léegi taalibe yi dañuy wax ne yàlla na la bàyyi fay nañ ko bàyyi yàlla na la yàlla fay la ñuy wax loolu la bàyyi doon wax te ñi doon liggéey ci toolam ba xam wax yooyu sel naa léegi ñi baax nag ñoo koy wax jërëjëfee Baye man dama koy wax ci sama xol waaye fan yi damaa toog di seetlu ne ñu doon bay ci tool Baye bay xam daanuñu wax loolu alhamdulilah yaa ngi xam nga li ko indi mooy dañoo dem ba xool suñu bopp gis ne sëriñ bi def na lu nekk te ñun defuñ daal léegi lu fi des mooy ñu ne ko jërëjëf est ce que doy est ce que doy na li sëriñ Baye waxoon. ne ku bugg àgg ci yàlla bàyyi nga ci yaakaar ku feebar bàyyi nga ci yaakaar kuñ jàpp bàyyi nga ci yaakaar te doy lu may cey bàyyi baax ngeen waaye doyul moo tax jërëjëfe bàyyi parce que ki koy wax lu baax rek la ci jub parce que dafa dafa am yu rabb ci xolom bi ba agsi ci loolu waaye li ma bëgg a wax mooy nañ jàng bàyyi ci boppam roy Muhammadul Misri daf koo wéy wax ne la in qiila li yowmal qiyaamati faxtabit فهذا الذي تهوى فخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيخ نظرة وحسبي به نزلا وحسبي به عشاء فقام باي موتا مولون بن ما وخون نما بس يوم القيامة نما نيتل سورة برنا يانيني أرجان نانيني مولين من باي رك دوينا ما قول باي بن بدوينا دوينا ما ريار دوينا ما واتشواي باي نك مم toujours mu ngi branché taalibeem yi rek ci pay bi wanul leen boppam de waaye lim lay wan boo gisee doo gis leneen lu may moom ndax walaw sawaruni fil xaqiqati lam yaraw siwa saxsin mahbubin bi atamatta ba Misri waxee loolu bàyyi ne ah lii de gàtt it la Misri génn di wax ak ñuy wax ak ñeneen bu ma ko waxoon ci Cheikhu Tidiane du wax loolu li ma ko wax ci moom rek moo tax mu wax loolu waaye bu ma ko waxoon ci Cheikhu Tidiane du wax loolu loolu mooy misri xam na li mu wax waaye xam na tim ci ki muy wax moo tax nañ nañ nañ roy bàyyi gis nga buñ doon liggéey am na liggéey yoo xam ne bu ñu ko doon defal bàyyi wax yi dafay wàññeeku waaye jërëjëfe bàyyi baax na de waaye firiw dara dem bay tool indil ko bàyyi moo gën loolu wala gënu ñi doon bay ci tool bàyyi ba xam daanuñu wax loolu wala daan ngeen ko dégg waxuñ ko woon ñi koy wax nag ñu baax lañ waaye ku am sëriñ bu mel ni bàyyi baax rek doyut ci yow gën a baax rek gën a baax rek yéen a ñu waxtaan ci bàyyi ku xam lu gën tim na ko wax fii léegi bala ñoo def Cheikh kon faydam bi dafa ñëw pour sellalal jaam yi dégg na taalibe buy wax ci moom. bu ñuy wax xuweera te majzuub la bu wér koo xam ne ku dëggu la su bëgg bàyyi mbëggeelam amul caaxaan ku am fanaaw la fanaawam amul caaxaan génn na fii dem Muritani am ku koy weddi mu ne ko man ko amul bàyyi du wax ak moom te kooku kenn mas ko wax loolu ba xuweera waxee loolu rek nekkee wax ci dëgg la waaye bàyyi génn na ci mbaaram dégg ko mu wax benn wax bàyyi daf koo oxaat saxaat ko baatil islam yi ashhadu laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan la gumi nee na bàyyi ca Nigeria dafa am ñu nekk fii di wax ne yow la ñuy tuddoo te léeg-léeg ñu àgg foo xam ne lu ñu leen wax rek ñu ne allah allah bàyyi na ko waaw waaye ñun ñooy xumaatu shariati ku ñu ànd ak ba mu jàdd sharia rek ñi taxawaat téyaat ci sa loxo ba tegaat la ci sharia bi loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg bàyyi nag lim indi ñëpp moom lañ bëgg ni ñu koy présenté rek moo fi moo ci nekk ñooy waxal nit ñi sóob ci suñuy yëf te wax moom mënta ñàkk am sóob ak borom wax ne wax bu nekk rek coob coob ak xol gi mu génnee mu ngi ci loolu nag mooy problème bi moo tax bi Moustapha di jàng léegi damaa amutoon sañ-sañ rek waaye li mu doon wax moo ma gën a neex li may wax nii parce que su ma coob du ci nekk su ma xalaat du ci nekk wax bàyyi la muy wax Cheikh Ahmed Tidiane wax ju neex la xam naa bu ñu déggoon arab bala maa commencé rek ngeen nañu may leen may leen ñu tuuti Moustapha jàng tuuti kon faydu bi njub la istiqaama la te feeñam lislaam bi daf koo nangu xadis yi nangu ko bàyyi ba muy waxtaanee fayda indi na ay aaya ci alquran ne lii kuy dégg mën na cee déggee manu am ak may gii nga xam ne ñëw na mujj maanaam sax min ayatin aw nusiyaanaati bi xayrin minhaa aw mislihaa loolu yàllaa ngi wax ci aaya alquran am na ay aaya yoo xam ne dañ leen a folli waaye aaya ju yàlla folli indi bu ci gën wala bu mel ni moom nga gis ne loolu maanaam alxuraan lay wax aaya yi waaye nag diri na sembaanam ba nga gis ne maanaam may gu rëy mën naa am gannaaw may yooyu ne fur biha haulaay faqad wakkalnaa biha qawman laysu biha bi kaafiriin boo ñuy weddee am na ñuy ñëw ñoom duñ ko weddi ndax yàlla dana leen ko déggaloo fa sawfa yaati llaahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna yàlla dana indi ñoo xam ne daf leen a bëgg ñu bëgg ko moom yàlla yàlla wax ne wa yaxluqu maa laa taalamuun yàlla dana bind lu ngeen xamut wala lu ngeen xamut googu mën naa nekk loo xam ne mu ci biir may yi ku jàng ba ne xar ni gaa yi wax xam tariqa bi lool ba pare lii feeñ ci te fekk sax moom xamu ko woon yàlla wax ne iza jaa nasrullaahi wal fatxu su googu ba tey yooyu ay yooyu la bàyyi indi pour wane rek jàppandeg feeñ ak may gu rëy mu indi ay xadis yoo xam ne gis naa ko ci jaw ci ci ci téeréem حديثي إندينا لين يونت بس الله عليه وسلم بواحنا أمتي كلمتا لا يأتي الخير في أولي أو في آخر سما قيبي كون قاولا كم نقل جن موي لجيت ولا لموت كون قم نين تي موت جي دانا أم لجن لي في يونت بواحنا لا يأتي طائفة من أمتي ظاهرين على الحق جدا أبكره ci sama xeet bi di feeñ ci dëgg feeñee dëgg ku wuteeg ñoom tim du leen lor wax ne yaati zamanun lil aamili fihi ajru xamsiina qaalu minna aw minhum ya rasulallah qaala minkum jamono ngi ñëw ñi fekkee jamono jooju buñ jëfee benn yàlla fay leen juróom fukk ñoom ñi ne yonantu juróom fukk ci seen yool ñoom jamono jooju wala juróom fukk ci suñ yool ñun buñ jëfee yonent bi ne leen ci seen yool yéen bu ngeen jëfee ay nit a ngi ñëw yoo xam ne saxaaba yi bu ñu jëfee am benn ñooñu bu ñëwee danañ jëf am juróom fukk te terewul nag ñun xam nañ ne saxaaba yi ñoo gën ñëpp wax ne sayajidu isa bnu maryama fi ummati xalafan min yii isa bu ñëwee ci mu jël jamono ñëwaat ci sama xeet bi dana fekk ñu u ñi ñi ñi koy uutul uutal xawaar yi mu àndoon ak ci jamonoom ñu mel noonu daal leen fi fekk ñeenti xadis yooyu la bàyyi indi bu saxalee ko wóoru bàyyi doon na yonantu de doon na yonantu bi ba doon na ko ci jawaami el kalimi may jàng diwaan si te gis benn bayti boo xam ne ñeenti xadis yooyu yëpp bàyyi indi na ko ci benn bayti ñeenti xadis yooyu yëpp bàyyi indi na ko ci benn bayti jawaami si sayaati zamaanun لا تزال وأمتي وما قال في عيسى سلو لحزبه سياتي سياتي زمان لا يزال لا تزال وأمتي وما قال في عيسى سلو لحزبه من قصيدة محمد وعبد الله غيره غير مشبه به بشر ما رام ذلك سفه waaw adi ah, waa kanu la waa kanu ñi ngi jàng diwaan baay bi bu baax di ko tari di ko jàng waaw fii nag ñaa ngi taalif seen di ko tari rek yoo xam olof bi sax dëgëru boo ko jàngee boo bëggee olof bu dëgër doo du la neex sax waaw waaye boo jàngoon olof yi dëgër sax mu neex la waaw nga jàng nga jàng Ibou Diouf lan lay wax ndaw lu xéeme ndaw lu tumuraanke ñay ci biiti xaaf doxandéem bi si kuy sa fuy sama makkaan li ku bugg olof rek war na laa neex waaye woy yoo xam ne amul bim amul dara amul maanaa amul kii nga neex baat rek bàyyi woy yi topp ci nañ dellu jàng bayti bàyyi nañ jàng woyi bàyyi parce que lu bëriñ ci ndax moo wax ne samaratu awqaati xayaati wa xirsi wa man jaati waaye benn bayt bi juróomi xadis ñeenti xadis yooyu mu ngi ci benn bayt bi sayaati mooy sayaati zamaanun lil aamili fihi ajru xamsina mooy sayaati gi laa yazaalu laa yazaalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq wa ummati mu ngi junj ummati kal matar laa yudra alxayru fi awali aw fi axiri wa ma qaala fi isa suluwun li xisbihi mu ngi junj sayajidu isa عيسى بن مريم خلفا لأمتي خلفا من حوارجيه كن قمنا أنا وخي فايدة دفا قدو دي موتا من لغ لغ دمي جيس موضوع رك جاق ندخ موضوع بو خمنا كن منكو لمتي وايه فايدة لو ياتو كن منكو وحشي بين بس بين قدو وايه مهدوية باي تدو لكو فبري boo demee ci Kaashiful Ilbaas bàyyi tudd na fi Mahdi yu waaye waxut ci Mahdi yu pour wax ne moom la te boobu sax moom fekk na mu feeñal faydu kon boobu tim waxi noppi mu ngi wax rek ci feeñal Mahdi ne dana ñëw gannaaw boo xamee ne rey nañ gannaaw Isa dana ñëw gannaaw buñ reyee Dajjal dégg nga tudd Mahdi ne dana dund ci gannaaw loolu juróom-ñaari at. loolu rek lay tudd ci mahdi yi foofu waaye tuddul mahdi yi ci benn cadre foofu bu muy waxee ne man maay mahdi wala maa ngi koy xaar te foofu tim ootee mahdi yu mënu faa nekk ndax fokk na baay fayd bi sax ooteem feeñ ba pare fu mu ko waxee nag man xaw ma xañ na ñoom oustaz ñoom Moustapha ñi am na fu ñu ko jàngee man xaw ma ko te ñaareel baay laaj nañ ko ci mahdi yi ci Soudan fi ma xam mu wax mahdi rek laay wax Majzub Mudassir moo ko laaj ci Soudan ne ko ndax yow yaa yonent bi bàyyi ne ko déedéet du ma yonent de Majzub borom xam-xam la taalibi sukayri jël dafa am ay waxi bàyyi rek yu mu bugg a firilu bàyyi ne ko lastu ana rasulullahi lakin huwa akli wa shurbi wa kulli wa juz'i man de kay man kat du waaye nag yonent bi mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lenn mooy sama lépp. mu ne bàyyi hal anta isa ndax yaay isa bàyyi ne ko lastu ana isa lakinahu fi jay bi duma ma isa nag waaye isa ci sama poos la ne ci mën a tukki rek tukki ci sa biir àggum nga seet feneen la ci mën a yóbbu rek mu ne bàyyi ndax yaay mahdi yu bàyyi ne ko lastu ana al mahdi lakin sayfahu bi yadi du ma mahdi waaye jaay say mahdi ci sama loxo la nekk te gis naa ca commencement ba ca commencement ba waxtu bi moo xat may mënumaa gis kayit bi koo xam ne dafa bindoon bàyyi ne mooy mahdi bàyyi ne ko hee bul ootee loo xam ne xamoo bul oote di wax ne yow ci àll bayti nga sax xamoo sax mahdi xam nañ ay kaanam xam nañ ne ci àll bayti lay nekk xam nañ ne ci eh, ci eh, baynal rukni wal xajar xajar fa lay feeñee ko gars dañ doon tàngoor dañuy sikar ba ci kanam rek ñu tàngoor wax benn affaire waaw nit ñëw na tàngoor rek ci kanam bàyyi jàpp ne bàyyi daf koy feeñal benn mag mu ne bàyyi ne ah yu mu ne ma defarwaat jàpp ne bàyyi daf may feeñal bàyyi ne ah Madiw yooyu moom maqaama rek boo xam ne góor ñu bari jaar nañ ci wàccee ko rek ba mu wàcc rek delluwaat ci àndal am na leetar bu bu bu garaaw bu mbir boo xam ne daf koo bind jëmale ko ci benn taalibe waaye saanil awal la bind wax ji ne ko waxal waxal ki nga xam ne ne ko li ma lay tontu ci leetar boobu ndax boobu ku dem ba gis ne Isaa sax dafa wàcc ci moom mu yëg. boo xam ne du fen lu mu wax dëgg la nga am lu mu yëg rek wax ko bàyyi bind ko leetar ne ko li may tontu ci wax ji yow ju kooku wax ne man xam naa yàlla xam naa yonent bi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa Cheikh Ahmed Tidiane xatmil katmi xam naa ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xam naa isa ne jaamu yàlla la yonentab yàlla la baatab yàlla la bu mu sànni ci mariama ak roxam yàlla doyloo na ma yàlla mii doyloo doyluloo doylu loo na ma ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wëlis isa ak muusa ak ibrahima ak nuuxu ak mbooleem yonentu yi ak mursalin yi ba kenn ci ñoom bu ma ñëwaloon danaa ko won doyloo sëkk gu ma doyloo yonentu ko kooku kon toggut di seet ay ci ñoom bu ma ñëwaloon danaa ko won doylu sëkk bu ma doyloo yonent bi wëlis kooku wëlis moom bu fekkee nag rawatina bu fekkee roxo kenn ci ñooñu dafa wàcc ci koo xam ne sama taalibe la man bu fekkee roxo kenn ci ñooñu dafa wàcc ci koo xam ne sama taalibe la man kon taalibeem moo demoon ba gis ne roxo saa dafa wàcc ci ma mu yëkku bàyyi ne ko ñoom buñ ma feeñoon ma war leen ne yonent bi doy na léegi nag bu fekkee ne sama taalibe sax moo far wax ne mooy kooka la ma koy wax ne ko ñun ay warasatun muhammadiyuuna ñu doon yonantu lañ walhamdulilahi rabbil alamin bàyyi na ñun kanam rek insha allahu ne maa ngi nuyu nag doom jooju nga xam ne def leloor nañ ko li nga wax maanaam mu koy wàccee rek ku delloo ko def leloor nañ ko li nga wax maa ngi koy wax ne ko lii ci xaqi góor ñi saalixiina yi wàllu yi borom tariqa yi dara la waaye ci ñun delu gannaaw la loolu la serigne boobu wax nga gis ne kon mom yonam lim wax hunalika amal faydu la shakka lan tara siwa arifi billahi wa shar'u mutqam faydu bi fi matale mu ne fofu doto gis ken lumay ko xamne dafa xam yàlla ta fek tim sharia sharia lum lum lum xereñee dur rek daf koy def ni waye daf koy def ba pare di ko xereñeel loolu la bàyyi méngaleeg faydu ba mu nettalee faydu ci biir Kaashiful Ilbaas wax na ñooñ faydu dem nañ ba nga xam ne lab nañ ci yàlla lab nañ ci yonentu lab nañ ci sëriñ bi dara mënatu këf lu may yàlla dégg nga ba mu waxee faydu feeñ ak faydu ci yande wax na lim bokk lim ànd ak wa faydatu tijaara qad tadafaqat bi yande wal anwaaru qad tafattaqat وحضرات القرب قد تحققت وتيلك الأعجام قد تفوقت صارت حمية خمرة الولاية في تلك الأعجام بالعناية بعد فهنا فايدو بي ويرنا دي بي جيجي دقل ننكو leer yaa جولي jolli pays نن أجم nañ نان چي نانك فايدو بي كوي نن ndax dangati naan ak wilaayatu moo ci ñom duun ñoko fagu mbax ak yàlla la sarat humayya khamratil wilaya fi tilka al a'jam bil inaya jaalana allah min ahli al inayati al khassa kon feñ ak faydu loolu la andak ak la ko baye melale ba fa fa woyee faydu bi déglu ko li wax هو الفيض لا يخفى على من تبصر من شاء ياتيه ومن شاء أنكر فخص به الله مدينة كولخ فكانت له دون المدائن مظهرا هي الفيضة العظمى فلا متقدم يحوم حواليه ولا متأخرا إذا جئتهم يوما وتلم بدارهم ترى الأمر من شمس الظهيرة اظهرا ترى فتية سكرى بحب إلههم وكل فتى يلفى لدى الذكر أزورا وأكبرهم فيها يزاحم أصغرا وأصغرهم فيها يزاحم أكبرا دو قيب جولي تا وقتان ويب فاتليكو يالا رنجا جيل بوغون بو فكي نك دمغا با أغي تي نيغا خمنا ني لا يالا وخنا نانكو كو فاتليكو يونتو بي لولو كو خم يالا مونو كو خيب جار يوني مولا شيخ ابراهيم مونو kon faydu bi nit ñi pareel nañ ko xaddul nañ ko moom tim pareel na ko doon ko waxee baayam doon ko ñaan yàlla tax taxqiq ko ba ci ziyaareem Faas nga xam ne boobu bàyyi onze ans la am maam alaaji dem na ba gis bàyyi mu ngi taxaw gis ko ci xabru Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi taxaw mu xam ne ñaanam ngi nangu na te nangu na ci kii kon ñoom ñu ngi ko doon xadul daf ko doon waxe am na ku ma wax keroog mu ne dafa am dégg na benn boroom xam-xam wax ne Baay Mahdawiya la oote woon gannaaw gi la door a xam ne boroom faydu la mu door a oote faydu ah ba pare mu ne wax na ne mu ngi ci bind yi weddiwuma ko de waaye bind yi ñoon nii diwaani bàyyi lu new ci mahdi yu mahdaw yëpp ci diwaani baay bi mu ngi ci benn yoon dewaan diwaawinu si te ku mokkal beneen rek wax ko xel day fàtte te na ko wax léegi ba ñoo dem dama lay gërëm waaye danga fekk bàyyi ci diwaani si muy wax tudd mahdaw yi dafay wax ne يصلي به المهدي يا فوز أمة يا أمهم طه وعيسى وآله وهنا أرجي لقل مهدي عونا ومرشدا له كل وقت من رضاي مجاله باي تودنا مهدي فو واي واخود نه واخود نه dafa bëgg nekk mahdi dafa wax gannaaw bum mellalee xeeti yonantu xeet bi nga xam ne mahdi yi dana ñëw nekk ilimaan ci xeet bi mu ne maa ngi oo texe xeet woo xam ne yonantu bi dana leen jiite isa jiite leen mahdi yi nga xam ne ci àll bayti la bokk jiite leen mu teg ci nag urajji liqa liqal mahdi yi awnan la murshidan lahu kulla waqtin min ridaaya majaaluhu maa ngi yaakaar dajeeg mahdi yu waxut maa ngi yaakaar do mahdi naa am biñ doon wax du boobu waaye boobu moom firiwul loolu bii moom li muy firi mooy maa ngi yaakaar dajeeg mahdi yu pour lan waxut pour dajeeg moom nekk taalibeem de pour nekk ndimbali mahdi yu bu doon nekk ndimbalam rek sax nga jàpp ne dafay nekk jund ci junudam ndax mahdi yu euh, boobaa dana xeex baatil nga jàpp ne kon ci jundam waaye wa mursidan la ci teg maa ngi yaakaar a dajeeg mahdi yu pour nekk ndimbalam ak nekk jubalkatam nga xam ne mahdi yu moom waxtu wu nekk li ma gërëm rek ci lay dox maanaam su may awaamir lay toog kon kooku lim oote ëpp na mahdaw yëtu te Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na ne mahdi yu bu ñëwee dana ñaan sama taalibe yi fatiha ñaan fatiha mun naa firi ñaan wirdo mën naa firi sàkku ci ñoom ñaan gis naa bayti baay yeneen yoo xam ne su neexut xel comme man bu koy jàng yàkkamti mën na koo firee mahdawiya waaye lam ko jeexalee moo lay xamal li muy wax fa wax ne wa arfau ilman lil jahalati waadian وأكسروا رايات الصليب وأدفنوا وبي يرفع الجور العظيم فإنه بف... وبي يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين الحنيف يزين فتمسي رجال الله في ظل راحة وعز وتمكين وبالحق أعلنوا يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا فياتي مسيح والرجال رجاله بدين الامام الهاشمي يتدينوا هنالك عم الفيض لا شك لن ترى سوى عارفي بالله والشرع متقن بيتي يوي بو خولé commencement بي da fay da fay nirok waxi mahdi ko xamné bay ليسلم جل الناس اقتل بعدها في نفس من والبي في نفس قصيده بي في لاي وخي لولو قصيده بي من نوحد مولانا باحمد نؤمن وبالرسل والاملاك وهو المهيمن وإن شاء قواني لحمل خلافة li kay arfaa tawxida wal kullu muslim mumin mutqinu wala muminu bu neexee mu may ma ma enu xilaafa pour ma yëkkati raayatu tawxid ñépp nekk ñu gëm yàlla mu dem ba ci biir mu ne ma yëkkati drapeau yi xam-xam suul réer yëkkati drapeau yi xam-xam suul réer loolu nag lu jara baye xel fekke ne serigne drapo yi xam-xam la yëkkati sul réer war nga gor gor lu ba xam satise yi nga xam ne tim ñoo amé darse yi am nañ liggéey bu gëna mag ñu musa mustafa ñi wa arfa ilman lil jahalati wadi'an yëkëti xam xam-xam soufel réer wa uksiru as-salib wa adfunu damm drapeau yi croix yi suul ko xam nga lii yëpp dafa niroo wax yi Mahdi yi góor yàlla yëpp mujj ci jàmm nag ak teraanga ak jàppandal ak feeñal dëgg nëbbatuñ dëgg bi noske àddina bi nekk ci loxoy ay góor yoo xam ne dañoo am xam-xam maîtriser xam-xam kon bàyyi ñi xamal ne noske àddina bi si ñu mujj ñoo xam ne ay góor yu maîtriser xam-xam moo tax il faut war nañ góorgóorlaat ci njàng ak njàngale parce que mag ñi yi baax yi fi nekk mooy seen résultat ñi fi nekk tey nag seen résultat ñoom ëllëg moo ñu koy wax buñ góorgóorloo ba nit ñi xam loolu mooy seen résultat buñ góorgóorloo ba nit ñi gëmuñ lu may àddina te àddina amul tim loolu mooy seen résultat xale yi yaruñ seen bopp xale yi jàngaluñu seen bopp xale yi xamaluñ seen bopp xale yi xamaluñ yàlla seen bopp ñi leen di yar ñoo leen di def niñ mel muy continuer ci xasida bi masiix ñëw ak ay góoram ñoom ñëpp ñu nekk ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne foofu la faydu bi hunaalika amal faydu kon lii ñëw nii yëpp tàllalu gi yëpp ba fii ba masiix di feeñee rek faydu baa ngi liggéey kon bu kenn wax ne faydu saani wala saalis wala sa rabe wala ëpp na ko dafa tàllalu rek di dem ku jàpp nag ne dafa am ku ma laaj keroog ne ma dafa am ku ko wax ne ko imaamul Xumayni dafa am moom it dafa am faydu ma ne ko mën naa am mayam ndax may yi dafa bëri kulla numiddu haulaay wa haulaay min ataa rabbika wa maa kaana ataa rabbika mahzura keneen am na mën naa oote mayam ma ne ko xaraka mi Seydou Ali bindal na ko leetar wax ne zaadahu llahu faydan dahran yàlla na ko yàlla dolli faydu ci jamono yëpp ndax dafa tegtale na xaraka moo amee faydu baay bi fekkee yaay ku koy beesal wax ni ñu beesul léegi may la may la may la may yi dafa yaatu dafa bëri ma ne leen am na waaju fi génnee léegi ma ne am na waaju fi génnee léegi ñu ne waaju dox la li waaju wax nag jëmalewuma ko ci faydu xaraka bi dama ko jëmale rek ci yu niroo bokkuñ waa ji dafa ñëw ma jox ko xaalis mu ne ah sëriñ ak këriñ ak fëriñ ñoo bokk sant waaye bokkuñ may leen waa ji tontu nañu faydu yi bëri nañ waaye bokkuñ mu ne sëriñ ak këriñ ak fëriñ ñoo bokk sant waaye duñ bëri may leen kii dañoo wax ne dox la waaye yàlla ko ebaloon pour mu jàngal ñu kon dafay tàll tàllalu di dem bàyyi waxaat feneen wa bi yurfau ljawru alazimu fa innahu bi faydi yanaalu diinu rafa liwaayi tooñ gu tooñ gu mag gi ci man lañ ko yëkkatee tooñ gu mag gi nag mooy bokkaale yàlla tooñ yëpp bokkaale yàlla ci gën a mag moo tax yàlla dana baale lépp ba mu des loolu lu may bàyyam ngeen àddina mu ñëw war a nekk ilimaan nga xam ne bàyyi moo ko ko nasal waaye ànd ak loolu waxtu wu nekk himmaam moy tasaare lislaam Fum mu toog da nga xamne ki julil la da nga xamne ne la da nga xamne ne Baye ñass moy serignam bala nga xamne moy mamam ren ji dama nek ci xaramul madani ci wéru koor ben talibé ci wa indi ak man xamanté wuñ sax mune may lo bokk imam hasan mané ko ñoo bokk mu top ma ba ci hôtel bi fekk jëloon na wirdo mu ne mbeesal ma sama wirdo ñu nekk ci waxtaan mujj sax nangoo ta tàggoog oo nañ ko ne ko sa sa goro day waaja de mu dem ma ma ne ko demal waaye laaj bi ma njëkk laaj mu ne ma waaw man bëgg naa xam Baye ne ko lan la mu ne ma damaa gis Cheikh Hassan bu ma dajee ak moom lu mu wax rek ne Cheikh Ibrahim lu wax rek ne Cheikh Ibrahim mu wax ne Cheikh Ibrahim ma ne ko li arab yi wax ndab lu nekk la ca nekk lay seeb tarbiye bàyyi la may bàyyi la junj bàyyi la yaram la bëgg-bëggam la éeneem la ñaanam la kon yàlla may na ko mu dem Amérique nekk foo xam ne dëkk bu tumuraanke dëgg la fekk na fa taalibe bàyyi mu gàttandu ko ndax Ahmed Dimson bàyyi Ousmane Dimson moo ko njëkk dalal foofu waaye kooku fekk naa ne benn étranger rek la muy dem waaye américain yi nga xam ne dugal na leen ci lislaam dugal leen ci tariqa bi boo demee ba xam leen ba waxtaan ak ñoom ngay xam liggéey bi laa la daaw toog naa koo xam ne du tudd turam waaye bu ma waxee waxam rek konte xam-xam la dañoo toog mu génnee kurus fii génnee kurus fii fii ma koy xool mu ne ma suma kurus yi daf laa jaaxal de ma ne ko waaw mu ne ma dama daan am fetal fii am fetal fii am fetal fii ba ma dajeeg imaam laa tàggoo fetal yi léegi kurus laa am buñ daan ñëw wasifa ñoom dañ daan ñëw wasifa ku nekk ak sa code boo xam ne fetal lañ ci fetal dañuy ñëw wasifa ku nekk ngi amee fetal denc ko parce que loolu rek lañ xam waaw dem ba nga xam ne ne wa ni'mal wakiil yaa latif am na benn jigéen boo xam ne maa ko jox tax tariqa safiya lañ koy wax daaw jéeg daf ne ma man damay jàng damay jàng damay jàng fukki junne yi xasbunallahu ne melokii ci guddi ak fukki junne yàlla ak ñaar ak fukki junne yàlla tiif ak ñaar man ne ko yow loo bàyyil sëriñ am na taalibe bu baax bu ñuy wax idris ñu Jersey la nekk si konte xam na ko daaw daf ne ma man fukki junne xasbunallahu ne melokii ak ñaar dafa tuuteeg man fi mu ne damaa bëgg lim bu rek noonu la imaam def ci ñoom dégg nga te muy àddina boo xam ne fetal rek lañ xamoon dégg nga jël leen def len ay julit yu bax amna na xamne xam ne dafa maa nettali ne dafa taseeg ben mbokam bu mu ci ayyamul jahiliya koku di wax ne ko waw yu lu guut yow dal yaangi mu ngi melni yaangi yaa ngi leer de looy jëfandikoo génne kurusam ni ko li rek waaw noonu la def ci ñoom ñu mujj nekk ay jankati alquran nekk ñu bugg yalla nekk ño xamne da nga dem sax ba amna na xam dañ lay wax ne gis na bàyyi jaxaran gis bi jahran deng te loolu yëpp maanaam may gi moo royaat rek ba àgg foofu kon li Baye waxoon ca commencement ba benn taalibe baayam di ko wax ne ko maa ngi lay oo ci faydu bi oo ma la ci ngir bëgg faydu bi tasaaroo ndax xam naa ne dana tasaaroo waaye dama la cee oo ngir bëgg gi ma la bëgg dama laa bëgg ba ma doyee xale ba léegi oo ma la ci ngir tasaaroo ak faydu bi dara mënu koo tere tasaaroo kenn mënu koo bloqué fépp tijaan yetu àgg faydu bi dana fa àgg waaye li xew sax mooy da ngay gis ne fu bëri fa àggale tariqa tariqa bi mu dem ba Johannesburg dem Afrique du Sud yoon boo xam ne mu'tamar ard rek la demoon waaye ISNA dafay liggéey dégg nga sommet de terre la ci la demoon waaye fekk taalibe yi ñëwoon fii nekk ci école bi di jàng fii éviter ko ci seen zaawiya mu dem waxtaan fa rek nit ñi dugg ci lislaam nit ñi dugg ci lislaam ba mu fay jógee lu mat ñaar téeméer dugg nañ ci lislaam feneen ak feneen ak feneen dégg nga dem na ba ci mu jëm yàlla may na ko loo xam ne maamam rek laa gis yàlla jox ndax juróom ñett ñetti junne nit ñetti eh, fukki eh, juróom ñetti junne nit dugg ci lislaam moom it ci ay fanam yu mujj rek yàlla may na ko ñetti junne nit dugg ci lislaam ca Cameroun at bi ko jiitu junne nàngam ca Tchad loolu yëpp madidu cheikh yi dafay tegtale ne man zaqaha yasiru sayral abadi dégg nga tariqa bi di dem dem na ba ba Guyana dem na ba Trinidad Trinidad imaam demu fa waaye dugal na fa tariqa bi dem naa fa ren ngir mottali yéeneem ndax bëggoon na faa dem ñoom it ñu ñu doon ñaan toujours ñi fay dem daaw sax boobu imaam ma ngi fi nekk ñu ngi may ñaan ma fay dem waaye ma gis ne imaam demoo fa may may may tegginal loolu dem nañ foofu ba léegi ay taalibe fa yoo xam ne ñu ngi sóobu di xam yàlla di yëngatu ci tariqa bi dégg nga di dégg maanaa yi di di mos li bàyyi mos di li bàyyi di wax te dégguñ olof dégguñu arab sax dégg nga isne bi rek moo wér boo demee ba Guyana ca gannaaw am boo demee Jamaïque yooyu yëpp dox na àggale fa àggale fa ote fa baay fan yii am na mbooloo ma oo ci Kishmir ki jiite na ma imaam moo ma joxoon tariqa ñu ngi fii ci Kishmir maa ngi xalaat gis naa xutba baay boo xam ne baay ndeysaan dafa bugg dafa buggul islaam waaw dafa bugg da ngay déglu baay ba ci kanam yow sa bopp nga ko yéeram sax xër bi ak bëgg bi ak moo tax taalibe Baay am na liggéey de te liggéey bi tim waaye am nga ku la yombalal liggéey nag ndax ndax ndax asgaru atbaa'i muniibu falaata walam yakun lil aqtaabi qabliya misla ma liza al abdi min faydin yaruqu sanaa wa ashkuru rabbi laysa sirri aaqiran wa asgaru atbaa'i muniibu falaata sama mboot jërmeelu day tàllal rek di dem kishmir ca Hind برازيل طريقة بانفا تا كشمير طريقة بانفا تا نيوم نيب سيسرا باي لاني تا اندونيزي تا ادنا بي ييب طريقة بي تسارونا في تا سلسلة تا سند الشيخ واي امام توخنا تي تانك بو خامنا ني تانك بو ياتو لا تا لب نك بو غيسه رك دا نغيس ني تاغو وتا باي لا لا لا لا, لا, لا فارق مخيلتو waxtu wu nekk waxtaan bu nekk rek da gis ne mu ngi teewlu bàyyi di teewlu ba ñu ko defee ci kanam bàyyi ba nangam xewee ci kanam bàyyi moo tax li ñu gën a ñàkk ci moom mooy loolu waaw ba nangam bàyyi na nangam gën a ñàkk ci moom mooy loolu waaye ñàkkuñ ko ndax mu ngi dund ci yàlla di dund ci boromam ku dëkk ak bàyyi yaa ngi dund téere bi nga xam ne moom la mujj a dajale te Cheikh Tidiane Cissé mool ko imaam dajale ci ñaani baay yépp am na ci ñaan boo xam ne allahumma inni asaluka iyaaka rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir ñaan googu sax baa ngi koy ñaan ci benn gàmm ci olof sax yàlla lu ñu may mujjee ñi soxlaat kon yàlla nañu yàlla may ñaan ñaan googu ba ko bàyyi bindal imaam dafa bind ne sirrun xaas bil iznil xaas lil waladil xaas mbóot mu jagoo ci ndigal lu jagoo ci doom ju jagoo kon nag loolu rek mooy moo moo tax mu mel noonu mu mel waaye dafa am loo xam ne imaam a ko netti loolu mën na ci téere bi ndax ca mujj ga imaam daf cee def benn baxs boo xam ne kënzul awliyaa yi fi tawassuli bi azamil asmaa yi la génnee liy tegtale ne maanaam li nekk ci kënzul awliyaa yi mooy ismul azam dafa wax ne téere boobu ba mu ko wanee Ilyas Kachina Ilyas Kachina daf nekkoon téere bi waxtu woo ko tasaaree garanteel naa la nga dëkk ak sa maam waaye wax jooju ñun dañ koo déggutoon nga xam ne góor ñu doy waar kon nag xadiisu cheikhi wa xawla cheikhi wa xadiisul faydati wa xadiisul imam wa xadiisu tariqati munta jeex ñi ngi am ko di ñaan yàlla mu yokk leeram ut ko ci njaboot gi ut ko ci pay bi te ut ko ci jumaa ji ut ko ci taalibe yi ut ko ci mbokk gi te yàlla def na ko min xayri shakkin ku ku nga ko muñee lu nekk waaye nag li tax muñ gi jafee dafa nekkoon di di des di ashia min an nuur boo xam ne eh, daiman tastau min nuuri cheikh yi waaye laa faa xat naa بركاته ولا فارقتنا بركات الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا وبالشر والتعسير تكوننا بها ولي ونصيرا انت مولانا ونعم مولانا ونعم يا ربي بالذات وبالصفات كنا في ظاهر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان واتهدنا لعمل الإحسان ولنا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وهب لنا ذرية مباركة تكون لها بلا مشاركة وجاز عنا كل من أحسن إليه من ربي إلى الحسنة نسب الشبيه والمحشر خير الورى من قد حبيب الكوثر صلى الله عليه ربنا وسلم من فضل الخير اللهم نسألك من فضلك وفضلك ومن كرمك ومن كرمك لما يليق من العطاء والمعرفة والتعاد والمنى ولا علوم الامات يا سميع الدائم بالرحمن إلهي قد وقفت بابك الذي يعني سائل لا ولقد تجد علينا عسكا واسعا وحياة طيبة وولد صالح من زوج صالح قول اللهم امنا في بطاعتك لا تكلنا نودينا وقيمة تلتزم سترا جميلا لا نار في حياتنا إلى خلق اللهم اقض حوائجنا وحوائج من أسند إلينا حاجة ونجنا من كل شر وشر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق دينك